li mu li li li juge bi wax mooy euh, Ousmane Sonko niñ ko dindee ci liste électorale yi jaaduwut parce que euh, li ñu naan procédure ni nga xamante ni moom la mbir yi demee ba ñu génnee ko ci list yi yàgg na ko wax du yoon tey li juge bi wax mu ngi tudd Sabassi Faye dafa dugg ci ci ci ci ci histoire justice ci taarixu justice Sénégal parce que keroog am na benn benn juge également bu nekkoon cour suprême procureur taxaw na ne moom jàppul ni li ñu teg Ousmane Sonko ci wàllu bañ jox ko joxe firu fichu parrainage bi lu loo xam ne yoon la wax na ko tey juge Sabassy Faye wax na lu demee noonu donc juge bi dugg na ci taarixu justice su Sénégal à côté de grands magistrats comme Kéba Mbaye yàlla na ko yàlla yërëm ku mel ni Modou Coumba Ba ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni yàgg nañ wane indépendance ci ci benn ci benn régime oppression donc courage la wane wane na également fierté de juge wane wane na dignité magistrat maanaam yàlla rek moo am doole kenn amul doole tey juge bi loolu la wane te li mu wax mooy Ousmane Sonko nañ ko dugalaat ci liste électorale yi li may wax rek mooy nañu dal nañu def nang parce que li am solo mooy am nañ ndam tey waaye ndam bu njëkk la li ci des am na leneen lu des te dinañ continuer liggéey loolu mënaguñ ko wax pour l'instant léegi damay bàyyi maître Ciré Clédor li mu continue